فيهما ومظهر فائدتهما زمزم الأرواح وقبلة العارفين مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياس رضي الله عنه رضي الله عن علم العلماء وجيل من الفقهاء الذي قال في نفس حقه وإياك في تلقيس أمري فإنني أرى برجال الله كلا ورائيا مولانا شيخ سرين بيس رضي الله عنه سلام عليكم حالة القرب والبعد سلام به تزداد رابطة الود salaamun aleykum kayfa xaalakum bahdi wa hal indakum min law anti maa indi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa Seydi Cheikh Hassan. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay wàccee ci wàccuwaay. nga baaloo ma nuyu. suma xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Serigne Mbaye Niass sa kër ma jëbel. macha allah di nuyu mboolem ñi rakkam mboolem njabootam mboolem imam ga ak njaboot gi yëpp nag. macha allah di nuyu jaaree ci moom di nuyu suñu xalifa bu màgg bi muy Cheikh. Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass xaadimul umma. macha allah di nuyu Seydi Ali Cheikh Barham mi nga xam ne ci ndigalam ci la ñu ci fii. Mhm. maa ngi nuyu mboolem jullit ñi di nuyu mboolem tijaan yi di nuyu mboolem taale bàyyi fu mu naa nekk ci kaw suuf. macha allah jërëjëf euh, Cheikh Ibrahim am nañ mbégte jàkkaarloo ak yow ci télévision Futurs Médias ngir waxtaane waajtaayu gàmmu bu mag bi nga xamante ni fa tabarakallah macha allah fas yéene na am le 7 janvier incha allahu taala fan lay doon fële ca euh, Medina Niassène euh, ca Medina ca kër. ma jabeel mhm. fa tabarakallahu ziyaar waa gox ba fa tabarakallahu ku tudd kër ma jabeel tuddaale daaru salaam mhm. ma fay nuyu ndaw ku ndaaya ñoom Rachid ñoom Maahi ñoom Jalal ñoom Tayib ndax sama ay promotionnaire lañ mhm. ñu nekkoon ca Tunisie jaamiatu Zeytuna doon fa jànge maa ngi nuyu ñoom ñëpp di ziyaar xalifa ba euh, di leen ñaanal yàlla yokku leen dëgëral si darajoom salaa salaam waa daaru salaam Rachid noonu joxal ñu ko ñëpp macha allah waaye euh, nan laa ko mën a waxee sax saa yuy waxtaanee. Mhm. lu jëm ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu faaw sama xel day dam si jenn jëm. Mhm. muy Cheikh Abdourahmane Ndaw Al Karim. Mhm. di sama sama di man maay moom mooy man. maa ngi koy nuyu di ko ziar ak le procureur Amary Faye ak njaboot gi yëpp macha allah ziar yi dinañ si ñëw. Euh, euh, Cheikh Ibrahim gàmmu gi euh, kañ la sosu ak kan moo ko sosoon. alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi waxtaanee tey koo xam ne. Mm. ku màgg la. te wax naa su ma bind yoo ma ne wa iyaaka fi talxiis amri fa innani ara bi rijalillahi kullan wara iya Mawlana Cheikh Sëriñ Mbaye Niass moom dafa waxoon ci benn weex muy gàtt ah, mu ne wa iyaaka ma lay wax ne fii talxiis amri su bëggee xam may kan ci def xulaasa tënk ko tënk sama mbir ci wax bu gàtt fa inna nii xamal la man dëgg-dëgg hmm. gis naa bi rijalillahi ci mboolem góor yàlla hmm. kullan ñoom ñëpp war a yaa ñu ngi sama gannaaw ti moo ko wax moo ko wax Mawlana Cheikh Serigne Mbaye Niass nag kër Madiabel bul laaj ci mooy kan doy na rek ma ne la Seydi Alhaaji Abdoulaye Niass moo ko jur aljadd Alhaaji Abdoulaye Niass aljadd ku ñu xam la si Sénégal moom la bàyyi doon wax ne maa gunt adri xabla daf nekk fii sara bi anna shumuusa takkuuna fa xuuna sara mu ne yow sama way jur yow sama bàyyi mosuma laa mosuma xam ne jant mm-hmm. dañ koy wekki suul ko ci biir suuf lu ba ma gisee sama wajuru góor génn àdduna ñu wekk ko def ci biir suuf. moom lu bokk ak Baye. moom ak Baye ñoo bokk benn Baye bu leen jur muy Seydi Alhaaji Abdoulaye Niass Aljadd. mooy ki leen jur. mu jur ko yar ko jàngal ko alquran karim ba mokk alquran ci at yu néew ci roon way jur mu tëdd boobu di Cheikh Alhaaji Abdoulaye Niass Aljadd. baayam Alhaaji Abdoulaye Niass mooy ki ko booleeg Cheikh Ibrahim Niass. te boobu jamono bu ndaw la. ndax yi wax nañu ci beneen laaj lam ci làmmiñam ne falahu maalanaa bat bu gàtt la nag waaye bat bu riche la falahu falahu maalanaa maalanaa lépp lu mu yor moom Cheikh Serigne Mbaye rek man lépp lu ñu yor ñun Baye Niass moom amee na ko ci xam-xam ci wilaaya ci daraja ci maarifa ci lépp falahu maalanaa naa la Baye wax ci wax mu gàtt maanaam Cheikh Serigne Mbaye Baye wax nañu ba tey ne lépp lu mu xam rek man Cheikh Ibrahim Niass ma ko jàngal lan ngi lu am solo muy gàmm googu ci mu sosoo mm-hmm. gàmm ak Mawlana Cheikh Serigne soo ko bëggee xam mooy bàyyi Niass mooy ki nga xam ne lépp lu sosu kër Cheikh Serigne Mbaye Baye moo ko sos lépp lu sosu laa wax kër Cheikh Serigne Mbaye Niass Baye moo ko sos comme ni nga xamee ne lépp lu sosu kër Cheikh Ibrahim Niass Cheikh Serigne mooy ko ko amal bu ndëf taalibe loolu ñëpp yaakaar naa nañ ko Cheikh Serigne Mbaye Baye moo ko sampal gàmmu gannaaw bi nga xam ne bàyyi moo ko yar jàngal ko wax bu wax ci moom lu ne jox ko mbooleem garaat yoo xam ne nit ku yar nit ba fonk ko ba naw ko ba def ko muy Serigne ndax Baye ko def Serigne Baye ko tuddee Serigne mbay bàyyi moo ko jàngal alquran bàyyi moo ko tafsiral bàyyi moo ko jàngal mbooleem punul ilmi yi mm-hmm. ba pare nag daf ku muy magu mbooleem taalibe yi ndax bàyyi waxoon na ne ala rahima illahi aqi wa hibbi ababakarin fataaya wa raxta sax bi moo ne ci bopp mbooleem taalibe yi ma ne comme lépp lu mu ne ci moom bàyyi moo ko def ci moom mm-hmm. bàyyi ñes moo ko ñëkk may ziyaara xam nga am na koo xam ne dana créer ziyaara wala taalibe mi créer ko ziyaara waaye kii sëriñam moom mooy ki ko jox ne ko jox naa la ndigal ci ñëw ziyaara la yebal mag ñi yebal borom xam-xam yi ne leen dem leen ziyaara Cheikh Serigne Mbaye Niass radiyallahu anhu parce que fa lahu ma lana fa lahu ma ndax lépp lu ne ci Cheikh Ibrahim Niass rek mu ngi ci Mawlana Cheikh Serigne Mbaye radiyallahu anhu ci kër ma jëbel bàyyi mooy ki ko xam ne moo ko samp ci ay dëkk yu bëri samp na ko laamaram ci loolu 1931 mhm. la ko bàyyi njëkk a samp laamaram mu liggéey fa liggéey bu rëy def na juróom-ñeenti at ci xam-xam loo xam ne nit mënu su koy wax mhm. bàyyi samp na ko beneen dëkk bi ñëw kër Makanji nekk na fa ay at ci 1940 ci 1944 nag la ko bàyyi samp kër ma jibel muy maqaruf mooy fi nga xam ne fa la sax fa la war a fa la gàmmu ko war a amee bàyyi samp ko foofu kër ma jibel muy Mawlana Cheikh Serigne Mbaye bi nga xamoon Aboubacar al Mustana muy yare di jàngale di xamle ci nekk urtaali bi Baye Niass radiallahu anhu 1949 la njëkk ñëw kër ma jibel may ko gàmmu maanaam Baye Niass gàmmu gi nan def mel na Baye da ko toxal ñetti yoon te mu ko amalee kër ma jibel mhm. ma xamal la ci taarix ne amul feneen fu bàyyi gàmmu mhm. ñetti yoon wala fu bàyyi gàmmu gannaaw ma dina bàyyi ñes feneen bàyyi gàmmul fu lu kër ma jibel te bàyyi gàmmul na ko ñetti yoon yoo xam ne bàyyi ak mboolem taalibe yi ñooy ànd ñëw kër ma jibel samp ko samp déngre yi ba ñi ñiy siikar bàyyi di ba bët set macha ba kër ma jibal la amee ci déngre moo waanaa Cheikh Serigne Baye gàmmu gu njëkk googu nag mu ngi am mille neuf cent mille neuf cent quarante mhm. yi mille neuf cent cinquante mooy lan mooy li xewoon diggante Lamine Lamine Gueye ak Senghor seen wati bu tàng boobu xew-xew yooyu. yi fi àddina yooyu yi fi àddina yooyu. Mm-hmm. moo taxoon góor gi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ñëwutoon. Mm-hmm. nag bàyyi dellu si waat Kër Madiabel gàmmu googu bàyyi moo ko gàmmu ba bët set. kon Cheikh Serigne Baye jàppal ne. war naa bàyyi moo ko jàngal bàyyi moo ko xamal bàyyi moo ko yar bàyyi moo ko sampal lépp loo gis mu am dëkk ëttëb Cheikh Serigne Baye rek. Mm-hmm. ci ndigalu Cheikh Ibrahim Niass la amee. bàyyi gàmmu ko 49 gàmmu 50 gàmmu 51 ñëwut. ñëwut 52 Cheikh Serigne bi ñëw Cheikh Ibrahim dégg nga Cheikh Ibrahim ndax bàyyi mooy ki samp déngër ba samp ma Cheikh Serigne Mbaye Niass xalifaam bu njëkk ñun xam nañ ko ndax Baye nees moo sampoon Cheikh Serigne Mbaye foofu Cheikh Serigne Mbaye génn àdduna Baye samp fa xalifaam bu ñuy wax Cheikh Alhaji Ibrahim Niass bu ñëpp xamoon ci diina mu ànd ak magam jo Baye Momat ci liggéey ba ci xam-xam ba ci lépp ñu ànd jàppalante ba tey ji fii may wax a yow Cheikh Seydi Cheikh Mamadou Maye al euh, euh, Cheikh Serigne Baye Niass. Mhm. Seydi Cheikh Mamadou Maye Cheikh Serigne Baye. Mhm. mooy ku fa uutu magam di Cheikh Barham ci liggéey ba ci gàmmu ko ci lépp. macha allah loolu mooy li jëm ci gàmmu Kanoju Wele. am na solo Cheikh Ibrahim macha allah yaakaar naa ni ñu ko talxiisa ni ñu ko tënkale résumé ko yaakaar naa képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel di nga xam solos gàmm gi nga xamante ni fa tabarakallahu macha allah moom la ñuy moom la ñuy waxtaanee. Euh, waajtaayu gàmm gi fan ngeen si toll. alhamdulilah wàcc ay gàmmu gi ñu ngi ci ci mboolem loo xam ne. la taalibe di war ndax wax naa la euh, sànq ma ne la. gàmm ak Seex Sëriñ Bay. duhul loo xam ne gàmm ak gàmm ak bàyyee la mboolem taalee bàyyee la ndax mboolem taalee bàyyee ñoo ittuhu gàmm gu ñoo koy amal. ndax wax naa la sànq ma ne Abdoulaye Diedhiou Ba. mi xamoon si njub xamoon ko ci xam-xam mu liggéey lu nekk ci faydu baay bi. nekkoon shérif bu tedd bu sell lool doon na wax ci waxam yu gàtt ne ci waxam yu gàtt ne. kadaalika sunu cheikh naasuru hisbihi ababakarin almualla fi kulli aarifi doon na tagg si sëriñ bay Ñas mi nga xam ne mooy magu taalib yi xam na la wax kazalika noonu suñu cheikh ki nga xam ne mooy doomu ndey mooy doomu bàyyi sëriñ bi moo bàyyi bokk benn bàyyi bi hisbihi moo dimbale mboolem taalee bàyyi ndax moo leen wan kii bàyyi Ibou Diouf waxoon nañu ci benn wax bu rëy bu doy waar ne bàyyi leen jikko yi përax day mab bu jëf di rekki man suub mm-hmm. di leen gërëm mbër mu leen wan Seydi Barham Maay mm-hmm. mbër mi ñu wan bàyyi bañ mën a xam bàyyi mën a jëriñu ci moom mooy Cheikh Serigne Baye Niass moo tax ma ne la naasuri his bi moo dimbale mboolem taalee bàyyi ndax ma leen wan a Cheikh Ibrahim Niass mm-hmm. al muhalla mooy kiñ kaweel fi ala kulli aarifin ci képp koy aarif rek ci bàyyi ndax moom moo njëkk naan ci bàyyi mooy ki njëkk tarbiyu ci bàyyi Niass te wax naa mooy taale bu mag ci wàllu xam-xam ci kër Baye Niass te yi nag moo njëkk naan ci faydu bi li Baye indi ci loxo Baye radiyallaahu anhu te li may wax nii mhm. soo demee Seydi Seex Ousmane Ndiaye da koy wax awaluhum qadimu awaluhum qadimu taaha al amjadu bawaabu cheikhina al karim al asaadu mu ne ki nga xam ne moo njëkk a jàpp ci Cheikh Ibrahim Niass te mooy ki gën a tedd ci nit ñi ànd ak Baye mu ne muhibuhu sadiquna al mukaramu wa dégg nga Abubakarin dégg nga al muxtaramu mu ne mooy ki nga xam ne mooy Abubakar mooy Cheikh Serigne Mbaye mi nga xam ne ñun ñëpp dañ ko ormal dañ ko màggal ndax borom xam-xam la doomi borom xam-xam la. macha allah Cheikh Serigne Mbaye Niass nag daan wax ci làmmiñu taalibe yi ci Cheikh Ibrahima Niass. Mm-hmm. ndax mooy ki daan wax ci làmmiñu taalibe yi. damay bëgg a leeral taalibe yi benn buntu bu sew bu gàtt bu am solo. Mm-hmm. alquranu karim lu mooy foor foor foor foor kenn mënul wax ne maa ngi ko déggee ci làmmiñu yàlla. loolu kenn mënu koy wax yaakaar naa ne ci yow borom xam-xam nga alquranu karim kenn mënta wax ne maa ngi ko déggee ci waxu yàlla alquranu karim waxu yàlla waaye ñu ngi ko déggee ci lam yonentul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baay Ñas nag li di di jëmmi leer di jëmmi xam-xam di jëmmi faydu toog benn bés muy binni ne ara faydu du tijaane faidun maa ngi gis faydu baa ngi nii di bëbb di ñëw wala mu yot faa bi xalfin gisuma xol bu ko mën a garde suma xol bu yaatu man a dégg maam faydu boobu ci noonu la seex sëriñ bay njëkkee ànd ak Baay comme nga alquranu karim ñu ngi ko déggee ci lam yonentul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu leer na bàyyi ñes nag waxam tasaahuram ak bawaatinam fokk mu am fu mu feeñee mën koy xam ci làmmiñu Seex Sëriñ Bay ñes la Baye doon waxee Baye mooy ki wax ci làmmiñu Seex Sëriñ Bay ndax Baye toog na benn bés mu ne Seex Sëriñ Bay mooy wax ci làmmiñu taalibe yi hmm. te kii wax ci làmmiñu taalibe yi ak kii wax ci làmmiñu sëriñ bi seen wax lenn la ak benn la hmm. seen wax amul uute hmm. sëriñ bi kan la mooy Cheikh Ibrahim Niass kii wax ci laamuñu taalib yi mooy Cheikh Serigne Mbaye Niass. macha allah te noom yàgg mu wax ci xalam na xamtu illaa yaxarsi fi xamdi zaatihi. Mm-hmm. kama kunta mahmudan wa amdan bi arfati. Mm-hmm. wa xalafani fi mulkihi bahda gaybati. wa surtout anal haadi fi wustu bahayti wa ma fi ximaay maa yi siwa munaadiyan mm-hmm. wa kulla alladi taxa tijaani fi qabdati fala aarifun illa bi baabiya waaqifun uddiiru wa usril qawma turran bi faydati wa ana alqaasimul maxru fi kulli xadratin wa anal aalim mawsuun fi kulli baldati wax bu ci ay wax yu rëy mu ne man Cheikh Serigne Mbaye Niass bi ngeen ngeen gis nii te lii hmm. mu ngi ko wax ci làmmiñu Baye ndax mën a Baye mu doon wax ci làmmiñam mu ne maay koo xam ne kenn du xam yàlla dul su muntu mi koy jaare ndax moom moo ñëkk ñëw Cheikh Ibrahim Niass tarbiyu ci moom xam yàlla ci moom bàyyi di jox ko ijaasa jox ko lépp wax ko ne ko fa lu naa mu ne maay borom kam xam bu ñu xam ci mboolem dëkk yi waaye maay enrich bu ñu xam ci mboolem xadara bi yàlla yi. am na solo yaay waxam la. Cheikh Ibrahim mi ku ko bàyyi mu gàmm gàmm gi. te gàmm gi ñëwul le 7 janvier la. incha allahu taala fële ca kër ma Jabel. sànq bi may tudd dafa am ko ma fàtte si njaboot Seydina Limaam. kooku mhm. oh, <laughs> Papa Jal maa ngi lay nuyu Papa Jal laay bu Papa daan moom sama xarit la sama lépp la mais Ousseynou sama seex moom. le 7 janvier incha allah. kan mooy gàmmu gàmmu gi ban heure lay tàmbali ban heure lay jeex fan lay doon si kër Madiabel ak sëriñ bi kan lay yeewi kan bi. gàmmu gi mën naa wax tàmbali na. tàmbali na tàmbali na. le sept la ma fo. le sept mooy gàmmu gi waaye tàmbali na. ndax mbiram taalib yi la taalib ñoo ko moom ñëpp yàkkamte gàmmu Kër Madiabel depuis mu des ay weer laa wax ma ne gàmmu gi tàmbali na moo tax man la maa ngi fi a <laughs> bi loolu fu mu leer ndax mbiram taalib yi la ndax Seex Sëriñ Bay wax naa la mooy magam mboolem taalib yi depuis gàmmu gi des ay weer la mboolem taalib yi di fuuglu gàmmu Kër Madiabel macha allah ndax gàmmu googu ñun ñëpp xam nañ la set 7 janvier lay am le 7 Kër ma kan mooy gàmmu gàmmu gi gàmmu gi ñu ngi koy gàmmu ci ndigalu Seydi wa Mawlaaya Cheikh Mouhamadoul Mahi Seex Sëriñ Bay Ñas moo jox rakkam bu ñuy wax Seydi Ali Cheikh Serigne Baye ñu bokk benn baay mu rakkam mooy mooy gàmmu gàmmu gi waaye ci ndigal ak ci teewaayu alxalifa Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Serigne Baye Niass ndax ñi ñuy seetaan am na su ñoo xam ne dañuy xam programme bi noonu lay demee naka lay tëddee ñu may demee mooy noonu mhm. mooy xalifa bi dana génn toog mhm. jàkkaarloog mboolem taalibe yi mhm. jox ndigalam Cheikh Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Seydi Seydi Ali Cheikh Seydi Mbaye mhm. wanaan rakkam la ñu bokk benn baay mhm. muy gàmmu suñ gàmmoo ba fajar nag mhm. xalifa bi ci ci yitteem ak ci mbaaxam dana laay biir mbooleem taalibe yi dana leen dénk dana leen digal dana leen waar ci njub ak ci xam-xam comme ngeen xamee yoonu Baay Ñas yoonu xam-xam la ndax benn wéykat doon wax ne nax ju eh, nax ju cheyqi nax lu nax ju taalimi wa taallumi hmm. wala amali wala ibadati hada nax ju barham mu ne goonu Baay Ñas moom dafa leer hmm. nax ju taallum yoonu xam-xam la hmm. wa taalim ak xamle wala amali ak liggéey wala ibadati ak jaamu yàlla gu mat sëkk hada nax ju barham mooy yoonu barham soo defee nag sëriñ bi Cheikh Mamadou Maye Cheikh Sëriñ Mbay wax ak taalibe yi dégg digal leen xaar la ñu dem ba beneen yoon. macha allah ma mayee tuuti. waaw bismillah si lu gaaw rek si deux minutes. ndax waxtu wi jeex na ba noppi. xam naa ne du dara lu tardé ñu bëgg waxtaanee. vieux mooy borom gàmmu gi. Mhm. bàyyi dafa toog ba mu yàgg mu bind ko leetar boo xam ne ko jumale. ndax naa bàyyi daan na toogum yàgg rek mu bàyyeekoo Kaolack ne kër ma jëmel laa ñëw. ñëw toog ak Cheikh Serigne Mbaye Tidiong moom waxtaan ba xolam sedd bàyyi wu ñeeku. te lu jiitu loolu Ibou Diouf doon na wax ne. magu bàyyi sax moo ko waxoon ci làmmiñam. magu taali bi kër ma jëmel laay dëkk. te boobu Cheikh mbay ñëw ñëwagul kër ma jëmel. Mhm. Ibou Diouf wooyu ñu mu ne ahlu ansaar ñëw rek kër ma jëmel. ñoo doon ñoo ñooy roose ngeer maanaam ñi nga xam ne ñooy dimbale faydu bi mhm. ñoom ñoo dëkk kër ma jëwel te loolu mooy xadara Cheikh Serigne Mbaye Niass mhm. Cheikh Serigne Mbaye bàyyi toog ak moom moom yàgg di ko bind leetar te ilaa wala di maa ngi jëmale leetar bi suma doom te ñoo bokk bàyyi waxarutu ay nii ki nga ne su ma ko gisee sama xol sedd man sara fiihi sirru aboubacarin mooy ki nga ne mootam aboubacar sadiq moo royaat si moom te bàyyi nga wax seen sëriñ bay moo ki nga xam ne lam yow su lu ma naqari mas ta def lu ma naqari benn yoon bàyyi su mu ne kooku lan la wax ci moom dafa ne ataani hawaawu qabla an arifa al hawa fa saadafa xam ban xaaliyan fatamakkana ba gëlëb seen sëriñ bay des daal daf maa dikkal te boobu man Cheikh Ibrahima Niass xamam ri ma génn ma dajee xol boo xam ne dafa wéet yàlla amul benn sikk amul benn ñaawteef mm-hmm. rek ma dugg ci xol boobu mu fees dell mm-hmm. kon bàyyi mooy ki fees ci xolob Cheikh Serigne Mbaye ba keneen amul sa cër mm-hmm. gi mu ngi amee kër ma jëbel le sept janvier le sept ñu ngi woo mboolem taalee bàyyi ma waxaat encore gàmmu kër ma jëbel gàmmu taalee bàyyi la na ko taalee bàyyi yépp di fonk ndax Cheikh Serigne Mbaye amul dara lu mu créel boppam lépp lu mu créé bàyyi moo ko créel bàyyi moo ko sampal gàmmu baay moo ko sampal te tafsiru Qur'an. Mhm. moo wax lu yéeme. Mhm. Cheikh Serigne Mbaye Niass baay moo ko joxoon ndigal tafsiru Alquran ñëw ubbil ko ko. Mhm. dem tukki. Cheikh Serigne Mbaye Niass nee amul benn yoon bu ma toog di tàmbali tafsir bi loolu Cheikh Ibrahim Niass mooy wax ne Serigne Mbaye tàmbalin. ci kàddu mu dégg ko directement. Serigne Mbaye tàmbalin. mu door a gàmmali mu doo tàmbali loolu. am na solo ci loolu nag. Mhm. ci li ñu woowee mboolem taalibe yi. ñu ngi gërëm waa Shababul kër euh, Sababul Cheikh Serigne Mbaye. Mhm. di gërëm mboolem njabootu Cheikh Serigne Mbaye. Mhm. war naa di gërëm encore Seydi Ali. mu nga xam ne. ci ndigalam mooy Seydi Ali Cheikh Serigne Mbaye. ci ndigalam lañ ñëwee fii. incha allah lii daal mooy appel boo xam ne. dañ ko jëmmale ci mboolem taalibe yi bàyyi. mboolem soppi yi mboolem xarit yi mboolem jullit ñi. di leen wax ne. nañ fuglu gàmmu kër ma jëbel. waaye nañ jéem a gëstu xam kenn ki nga xam ne mooy Cheikh Serigne Mbaye Niass. daara li fees dëndam bi feesoon dell mhm. amul fenn fu mu ko yàq mhm. fu mu ko yakk ci Cheikh Serigne Baye am na solo kon nag Baytu Mamour ci faydu Baye Niass bi mhm. fi ñu denc mbir mi di ko séddale ku mooy Cheikh Serigne Baye jërëjëf Cheikh Ibrahima Thiam ci kàddu yu am solo yooyu kon mbokki yi baa ngi noonu le 7 janvier lay doon incha allah fële ca gàmmu Medina Niassène kër Madiabel incha allah édition bi ren 7 janvier 2023 lay doon yàlla nañ si yegg ak jàmm si daraja yonante bi sallallahu alayhi wa sallam barke Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu jërëjëf jërëjëf Cheikh Ibrahim kontaan